ñu revenir ci li ma la wax euh, ba bi nan nga gisee. Euh, lañu ko yañu ko activité yi ñu commencé woon amal foofu. violence ba sëñ bi tàbbal ndiggal ne fa politique. waaw waaw boobu xam nga léegi loolu yëpp loolu yëpp mooy li ma la wax rek sëñ bi dañ ko war a jàppale. gis nga réew mi bu fekkoonte ne dañ naan président xam nga ñu bari sax lu bari Macky lañ koy jiiñ te fekk du moom. waaw d'accord mooy président de la république waaye mënul fu ne mu nekk fa am na ay ministre ak yépp ak ay kii yëpp waaye am na yoo xamante ni waaye lépp moom lañ koy jiñ léegi nag sëñ bi dafa doon loo ne mag la mag la ba noppi te yoonu murit bari ay boroomi xam-xam waaw dañu ko war a gën a jàppale ca dëkk baat ci lépp waaw ndax moom day ji seex la xajoon na lépp il est plus tolérant que tout le monde dafa tolérant waaw dafa tolérant am yoo xamante ni bii moom tolérance képp képp képp moo tax muy masla bàyyi mu fay am waaye waaw ak it yërëm gu muy yërëm doomu aadama yi xanaa xamoon ni sëriñ Muntaqa ni muy dunde moom ku tedd ki ci lu dul mooy sama maam sëriñ Basiiru mooy sama wayjur façon bi muy dunde ku tedd ki moo tax muy yërëm nit ñi nit nit ñi umpalee ku tedd ki nit ñi dañoo umpalee ku tedd ki parce que dañoo defe ne rek ab sëriñ la nii bu fi ñëw ab sëriñ la bu fi ñëw ni fi sëriñ si ñëwee woon doon wàlli yu du loolu dafa def lu kenn deful lu kenn mus a def waaw moo tax mu dem ba yàlla yëkkati ko mu tiim ñëpp ñu baax ñëpp mu féete leen kaw waaw ndax fi mu jaar la